waaw euh, tey ci suba euh, bu 10 heures 16 minutes jotee dañ ñu woo pour benn feu de magasin magasin boo xam ne ay matelas lañ fa doon denc donc 7 minutes plus tard euh, juróom-ñaari minutes bi ñu ko si tegee premier secours yi ñëw nañ ci sur place donc bi ñu ñëwee constaté nañ ko ni effectivement li ñu doon woowee moo nekk sur place donc ñun def nañ une heure trente minutes pour mën a fay lakk boobu donc pour cette pour intervention bi élément sapeur pompier yu Touba jot nañ cee engagé ñaari fourgon mooy camion yi fay lakk jot nañ cee engagé aussi euh, lu tolloog ñaar fukki élément dont le commandant de compagnie mooy ki commandé camp sapeur bu muy man donc li lakk moom xam naa ni li li waral lakk bi loolu police ubbi na enquête am donc dañ leen di bàyyi ñoom ñu terminer seen enquête dinañ mën a définir cause yi tax mu lakk voilà donc euh, li ma mën a wax mooy fii heureusement amuñu di ñaawlu euh, perte en vies donc kenn ñàkku si ñàkku si bakkanam donc lépp li ci euh, yàqu ay matériel la mooy ay matelas yu ñu fi stocké woon donc damay profité ci occasion bi tamit di lancer un appel à population yi nga xam ne matériel yi dafa ma nekk matériel yoo xam ne dafa gaaw a dafa gaaw lakk te bu lakkee lakk bi souvent day am doole donc bu koy stocké wala ñu koy denc quelque part nañuy jaar fi ñu war a jaar donc euh, ñu wax leen mesures yi ñu war a respecté ñu mën ko respecté pour bu suba incha allah lu mel ni dootul am